أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عندك أجين تباقى min rawdi rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mbokki jullit yi tey ñu ngi jël benn xadis ci xadis yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo xam ne sahaaba bu tudd abi xur abu hurayra radiyallahu anhu wa ardaahu moom moonu ko nettali abu hurayra mooy kan jàlloon na abdurahman ibnu saxra dawsi alyamani abu hurayra kenn la woon ci kàngami sahaaba yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom abu hurayra moom moo ñu nettali xadis bi من عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم abu hurayra nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na inna allaha naka yàlla laa yanzuru du xool ilaa ajsaadikum ci seeni yaram wala ilaa suwarikum du xool seeni jëmm seeni forme walakin waaye yanzuru day xool ilaa qulubikum ci seeni xol rawahu muslim inna allaha naka buur bi di yàlla subhaanahu wa taala mooy buur bi nga xam ne laa yanzuru du xool ila ajsaadikum ci seeni yaram yaram yitteelu ko yaram yitteelul yàlla dangaa xees dangaa ñuul dangaa mbuxuri dangaa sew dangaa gàtt dangaa njool dangaa rafet dangaa ñaaw loolu yitteelul yàlla góor nga jigéen nga loolu yitteelul allahu subhaanahu wa taala wala ila suwarikum yàlla du xool forme yi da ngeen a taayak da ngeen a sewruujak da ngeen a déedéet forme bi yaram bi yitteelul yàlla walakin waaye yàlla lan lay xool ci nit yanzur day xool ila qulubikum ci xol yi kon lii mooy xadis bi al imam muslim moo solo xadis bi mbokk yi bu ñuy jàngat xadis bi lan lañ ciy jëlee mooy hada al xadis yadullu ala ma yadullu alayhi qawlu allahi taala يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم حديث bi li muy li muy jàngale li mu bëgg wëlbati sunuy xel mooy aaya alquran bi yàlla di ñu nettali ci suratul xujuraat aaya 13 borom bi subhaanahu wa taala mu ngi fay wax yaa ayuha nnaas yéen nit ñi innaa man yàlla xalaqnaakum maa leen bind min zakarin wa unsa ma jële leen ci ay góor ak jigéen yàlla maay ki leen bind yéen nit ñi su fekkee da ngeen di sikki sàkka di laam-laamee fan ngeen jóge yëg leen ne man yàlla maay ki leen bind jële leen ci góor ak jigéen muy aadama ak awa wa jaalnaakum suuban wa qabaila li taarafu ginnaaw ba ma leen bindee ba pare nag ma def leen ay peuple ak ay giir ma def leen ay peuple shuub jamu shaab wa qabail jamu qabila ma def leen ay peuple ak ay giir lu tax li taarafu pour ngeen xamante inna akramakum inda allahi atqaakum yëg leen ne ki gën a baax ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla aaya bi boo koy jàng di nga yëg ne ki gën a ragal yàlla ci nit ñi du ku njool du ku gàtt du ku am yaram du ku sewruuj du ku xees du ku ñuul du ku du ku du ku kan la ki gën a ragal yàlla hadis bi ci kaw boo koy dégluwaat looy wax ki gën ci nit ñi mooy ki xolam baax te ki xolam baax mooy ki am ragal yàlla mu ne fa allahu subhanahu wa taala la yanzuru ila al ibad ila ajsamihim hal hiya kabira aw sagira yàlla subhanahu wa taala ñun ñoom nañu ànd xam ne yàlla du xool jaam ñi seeni yaram moo tax kuy sonn ci sa yaram da ngay dee rek boo dee sax yi ñooy lekk yaram bi day gis benn waay di naan ñay ngir ngande naan ba ngande fu mu romb ñu ne waaye gis ngeen diw ni mu amee yaram su dee ñëwal ko ci suuf yaram bu ngande boobu sax yi lekk ñu ngi mel ne rek xar muy lekk rakkalak di lekk ay carton bi ñu koy jëndal ngooñ ak di ko jëndal lu ne xar mi di lekk rek pour ngande après nit ñee koy lekk ndax moom ngandaayam bi jëri na ko kon ni ngay jéeme sonne ci sa yaram bi pour mu rafet nga sonn ci sa jikko bi pour mu baax nga sonn ci sa ngëm yàlla ndax mu dëgër moo ëpp importance waaw léeg-léeg nga gis kuy sonn ci yaramam sonn ci bopp bi sonn ci bët yi sonn ci kanam gi di diw di pacc paccal ak di di di di di di di di fekk amul benn njëriñ sonn ci kawar gi di défriser di gaz ak ah ah soxna fekk amul njëriñ ci lan nga war a sonn mooy ci sa xol xol bi baax ngëm yàlla gi baax waaw da nga gis benn waaye buy entraîné naan dama bëgg a jàpp di yëg montagne di daw ba gis ngeen temps yi ni ma dëgëree après sax yi rek sax yi moom boo duggee ci biir suuf dootul dëgër dañuy ñoppati rek mu leen di topp kon nag mbokk yi yaram bi yàlla du ko xool hal hiya kabira ndax yaram bi dafa pata aw saxira wala dafa tuuti aw saxiya dafa wér aw saqim dafa feebar yàlla xoolul yooyu yëpp da ngaa feebar yàlla xoolul loolu da ngaa wér yàlla xoolu ko da ngaa pata yàlla xoolu ko da ngaa sewru yàlla xoolul loolu wala yanzuru ila suwar yàlla xoolul jëmm ji sa njool dafa gàtt hal jamila ndax dafa rafet aw zamima wala dafa ñaaw kullu hada laysa shay inda allah lii lépp mbokk yi ci yàlla du dara du tus wa kazalika la yanzuru ila al ansab naka noonu mbokk yi yàlla du xool askan yi ndax ñi ay séeréer lañ ndax ñi ay tukulóor lañ ndax ñi ay garmi lañ ndax ñi ay maabo lañ ndax ñi ay lawbe lañ ndax ñi ay géwél lañ ndax ñi ay géer lañ yàlla xoolul loolu ndax ñi ay tubaab lañ ndax ñi ay africain lañ yàlla xoolul loolu ndax ñi màkk lañ dëkk ndax ñi Sénégal lañ dëkk yàlla xoolul loolu de waaw bàyyi leen xel loolu bu baax yàlla xoolul loolu xoolul askan yi hal raqiqa ndax dafa sew aw za aw danina wala yàlla xoolul loolu wala yanzuru aydan ilal amwal yàlla xoolul alal yi aussi alal yi waaw ñi ñooy borom alal yi ñëw nañ ñëw amal xiyaam jot yàlla ne ana borom alal yi wala yanzuru ila shay'in min haza abadan yàlla xoolul li ana ñi ñàkk ñi déedéet fa laysa bayna allahi wa bayna xalqihi sila illa bi taqwa mbokk yi diggante yàlla ak jaam ñi xam ngeen ban buum moo fi nekk bu leen jokkale ndax xam ngeen ko diggante yàlla ak jaam ñi ban buum moo leen taqale ñoom ñaar ku ko xam déedéet ragal yàlla pot lampe bi fiil bi ko taqalee kër gi jóge ci pot lampe bi ñëw ci kër gi lan la courant bi bu kër gi nekkee ci wetu pot lampe bi te te xëccul benn fiil ndax kër gi dina tàkk du tàkk jege courant taxuta nga am courant jege courant am portable te amoo réseau taxul nga jëriñoo portable bi ah kon nag réseau lu jaraam la réseau mooy lan mooy ragal yàlla soo ngandee te ragaloo yàlla amul njëriñ soo xeesee pecc amoo ragal yàlla amul njëriñ soo ñuulee kukku ne këriñ amoo ragal yàlla amul njëriñ soo amee alal ragaloo yàlla amul njëriñ boo amee ay oto ragaloo yàlla amul njëriñ boo amee ay immeuble ragaloo yàlla amul njëriñ boo tukkee ragaloo yàlla amul njëriñ loo mën a mel ragalal yàlla kon nañu sonn ci suñu xol yi mbokk julit yi min haza mu ne ci lii ci la ñuy xamee ne ragal yàlla mooy mbir mi ki gën ci nit ñi fa man kaana lillahi atqa kaana min allahi aqrab képp koo xam ne dangaa ragal yàlla yëgal ne yow yaa gën a jege yàlla waaw fa ma kaana lillahi atqa képp koo xam ne dangaa ragal yàlla kaana min allahi aqrab nga gën a jege yàlla saa yoo gën a ragal yàlla rek jege ko waaw gaynde soo ko ragalee noo koy def danga koy daw danga koy sori yàlla boo ko ragalee danga koy jege allahu akbar du benn kon nag nañ jéem a ragal yàlla jéem a ragal yàlla mooy lan mooy ñu defar sunu xol yi jéem a defar sunu ngëm yàlla loolu mooy li ñuy jëriñ àdduna mooy li ñuy jëriñ àllaaxira wa kaana indallahi akram képp koo xam ne dangaa ragal yàlla di nga gën a tedd jege borom bi tabaraka wa taala is la taftaxir bi malik sa alal bu mu la jiital alal wala bi jamalika sa taar bu mu la jiital taar taar la nag lan moo koy joxe yére yi ah waaw defaru defar kanam gi defar yaram bi diw di capp-cappal di jàmb di def fekk yooyu yëpp après amul sens moo tax bul ne bul tiitaru sa rafetaay bul tiitaru sa alal bul tiitaru sa yaram bul tiitaru say doom am na ay doom ñu ñëpp samay doom lañ gàlle doom laa yor njaga njaayu doom laa yor yooyu amul njëriñ wala bi xusuurika samay sato am naa trente maison am naa trente kër am naa ay palais wala bi basaatinik ay tool sayaaraat ay oto wala bi shay min haza min addunia abadan bul tiitaru lii yëpp qaaruna moo la ëppale woon inna qaaruna kaana min qawmi muusa fa baga alayhim wa ataynaahu min alkunuzi ma inna mafatihahu la tanu bi ulil usba yàlla nee na qaaruna alal ji mu amoon banque yi banque yi ni mu bëree woon caabi yi ay nit attanuñ ko woon ay gëléem ñooy yëkkati caabi yi ay gëléem lañ koy sëf la ilaha illallah kooku de amagul ci àdduna kooku àdduna bi ku mel noonu amatu fi ku am ay caabi coffre-fort ba ay gëléem di ko yenu kooku kay amatu fi qaaruna nag noonu la meloon waaye fu mu mujj yàlla nee na dama ne suuf si na ko wan na suuf see ko wan na kon ana alalam amul njëriñ kon nañ góor-góor lii ñuy jàng pour nun la du pour keneen kenn ku nekk déggal ci lii xool ci nga xool sa bopp nga jéem a defaru nga ragal yàlla mbokk yi innama iza wafaqa allahu littaqwa leeral ne yow mii bu la yàlla dimbalee nga ragal ko fa haza min fadlillahi alayka fahmidillaha alayhi bu la yàlla dimbalee nga am ragal yàlla sa conscience tranquille loolu xéewal la bu la yàlla jagleel xéewal la bu la yàlla jagleel santal yàlla ci loolu mu ne nañ delluwaat tuuti taxaw seet wax ji yonent bi ne walakin yanzuru ila qulubikum yàlla neen damay xool seen xol yi mu ne fal qulub hiya allati alayha almadaar xol mooy waruwaay xol mooy waruwaayu nit waaw xol mooy wéruwaay bi nee na hadis bi dafay dëgëral si hadis bi yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innamal amal binniyaat yéene fan lay nekk ci xol yéene ci xol lay nekk li nga yéene ci mbir yi rek loolu nga ci yem waaw kon nanu yéene yéene bu baax kenn ku nekk ñun di yeesal yéeneem di defar xolam di defar xelam di defar bakkanam di defar boppam fexe ba xolam jub fexe ba xelam di nekk ci yàlla tabaraka wa taala mu ne alqulub hiya allati alayha almadar xol bi mooy wóruwaay bi kam min insanin zahirin amaluhu annahu sahih wa jayyid wa salih lakin lamma bana ala alxarabi saara xaraban den saa nga gis waaju baax waaju wir waaju rafet waajoo xam ne ñëpp ko bëgg waaye mu daal dem tabax fu bon bi mu tabaxee fu bon kër ga nu muy def day daanu mooy kon soo baaxee da ngay def lu baax waxal lu baax jëfal lu baax demal fu baax àndal ak ñu baax loolay tax sa jëf yàlla daal di koy nangu fa niyatu hiya al aslu yéene mooy cosaan tajidu rajulayni di nga fekk ñaari nit ñoom ñaar yu salliyaani fi saffin waahid ñu taxaw ci kanamu jàkka ji di julli nekk ci benn sàppe ñu ngi julli ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom ñu ngi roy ci seen imaam waaye seen julli mu ngi sorante ni penku ak sow sorante ni asamaan ak suuf sorante te pourtant ñoom ñaar ñu ngi ci sàppe bi ñoom ñaar ñoo taqaloo ñoo ngi toppandoo imaam bi lu imaam bi wax ñu wax waaye ñoom ñaar seen julli ni asamaan ak suuf sorante ñoom ñaar noonu lañ sorante lu tax ndax kenn ki yéeneem def koo baaxal yéene julleem baax contrôler geste yi contrôler askar yi yi muy wax suru koowee su sujootee suy taaya lépp mu koy def normal kële nag moom mu ngi ci jàkka ji kàbbar na ilimaan bu rukoowee mu rukoo bu sujootee mu sujoo waaye xolam a ngi ci ginnaaw jàkka ji xalama nga ca hypermarché ba ca commerçant ya di xool ban tisee gën a rafet di xool tey lan laay añee di xool tey fan laay dem di xool poosam lu ci nekk di xool di fayeeku bor léeg-léeg nga gis kuy julli koo xam ne mu ngi fayeeku bor naan bu may sëlmar rek Mohamed yoral na ma deux cent day tey foog mu fay ma ko ma dem ma dem may ga fekk mi ngi julli de bu may sëlmar rek dem poñe papa jënd élément waaw léeg-léeg nga gis ku nekk ci biir julli ndeke mu ngi xuloo di xeex te mu ngi ci biir julli gi te mu ngi xeex fële di xuloo waaw wala nga gis ku nekk ci ci ci jàkk di julli fekk mu ngi ci oto di tukki fekk mu ngi ci jàkk ji de waaye xolam bi moo fa nekkul looloo tax julli yi foog ñuy contrôler xol bi xol bi di toog ci biir jàkk ji xol bi di toog ci place bi ngay jullee nga boole ko ko balaa muy génn di dem waaw léeg-léeg nga gis koo xam ne mu ngi julli waaye xol baa ngi ci stade ba di seetaan làmb ji am nañu yàlla dimbali mbokk yi kon li anna al qalb muxtalif gis nga xol yi suñu wuutee ñaar ñi di julli seeni xol yi wuutee ahaduhuma qalbuhu gaafil kenn ki xol bi dafa sàggan ba rubbama yakunu muraa'iyan yenn saa yi sa xol bi di ngistal fi salaati yi ci julleem wal iyaazu billah keneen ki nag xol bi dafa teew xol bi dafa baax moo tax mu daal di am tiyaaba wal aaxir qalbuhu xaadir yuridu bi salaatihi wajha allah wa ittibaai sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kii julleem daf koo teewlu bëgg ci julli gi yàlla ak topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax julleem daal di baax yàlla daal di koy nangu kon nañu góorgóorlu defar sunu xol nañu góorgóorlu defar sunu ngëm yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna allaha laa yanzuru ila suwarikum inna allaha laa yanzuru ila ajsaadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum yàlla day du xool yaram yi du xool jëmm yi waaye lan lay xool xol yi xol yi nañ defar xol yi mbokk yi nit ñi sonnee ci yaram yi pour yaram yi leer pour yaram yi set pour yaram yi rafet pour yaram yi di melax pour yaram yi nañuy sonnee noonu pour xol bi baax pour ñu am ragal yàlla fa baynahuma farqun azim ñaar ñi seen diggante sore na fal amalu ma fi l qalb jëf mooy la ca xol wa ala ma fi l qalb yakunu l jaza yawma alqiyama li ci xol bi la yàlla di fay yawma alqiyam qala taala wa innahu ala rajiihi la qadir yawma tubla sarair suratu tariq waaw nañu defar nañu defar xol yi moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na innama ana bashar man di nit laa wa innakum taxtasimuna yenn saa yi ngeen xuloo ngeen ñëw ci man ma daa di àtte kenn ci yéen neex làmmiñ neex làmmiñ ba ma àtte jox ko dëgg waaye na yëg ne kooku kooku dem wax wax ju neex ba ma jox ko dëgg ndax la ma dégg na yëg ne daggitu safara laa ko jox képp ku fi neex neex lu baat ba nga xeex ak nit yaa ko tooñ nga ñëw di yaa ko dàq wax nga wax mbalalalalala ba ñu la yaa jor dëgg gi yowmal xiyaam yëgal na safara lañ dagg jox la ndax yàlla subhanahu wa taala moo xam mbiri afala yaalamu ida buuthira ma fi lqubuur wa xussila ma fi sudur yàlla nee na ëllëg yowmal xiyaam dinaa dekkil ñi nekk ci bàmmeel yi waaye li ci xol yi dinaa ko génne kon mbokk juliti nañu laabal suñu xol nañ ci génn bokkaale nañu defar sunuy xol lu raw nu ñuy defaree sunuy yaram la budda min ilaaji al qulub il faut ñu faj xol yi daiman kun daiman alal ghasil lil qalb nekkal chaque jour koy raxas sa xol hatta yatataxar ba xol bi laab yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo raxas seen xol ulaika allazina lam yuridillahu an yutahira qulubam ñi nga xam ne du ñu raxas seen xol ay bokkaalekat lañ yàlla ne ñi nammumaa defar seen xol yi kon fa fa tathirul qulub fa tathirul qalb amrun muhimun jiddan laabal xol lu am importance la asalullaha maa ngi ñaan yàlla an yutahira qalbi wa qulubakum mu raxas sama xol laabal ko raxas seen xol laabal ko wa an yajcalana lahu muxlisina wa li rasulihi muttabiin ngi ñaan yàlla mu def ñu ñuy sellal ñuy topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi lii mooy dars tey asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu